الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا salaamaaleykum wa rahmatullah barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci sangam bi Seydina Muhammad ak ci waa këram ñu baax ña ak saxaabaam ya ñoo ngi ñëw ci xadiya bi nga xamante ni moom leen sàkk woon pour def ko ci kër gi mu mel ni xaw naa jàppandi ñu bëggoon si sànni quelques jours ci waxtaan si lu jëm ci wàll ziyaare al imam al Husayn alayhi salaatu wassalaam mu mel ni am na ay ngëneel yu bari yu ci nekk yoo xamante ni yenant bi woo tuddoon na ko aima yi fi jaar yépp ñoom tudd nañu ko ña jiitu ci wàll dund tudd nañu ko parce xamoon nañu affaire bi ni muy demee ñi ko mujjit fekk woon jamono bi tudd nañ ko mu mel ni loolu ay riwaayaat mutawatira rot na ci ci borom xam-xam yi te nag ñu andi tuuti benn wax boo xamante ni al imaamu sadiq alayhi salaatu wassalaam moo ko waxoon lu jëm ci wàllu ziyaare al imaam al Hussein alayhi mu mel nii dañoo nekk fi ayaamul arbain bi mooy ñeent fukkeelu guddeeg imaam al Hussein nga xamante ni su àdduna bi ñëpp yëgati ni am na lu xewati ñoom ñeet seen xel mi dafay nekk fële di bërëb bu tedd ba di Karbala ñi mën a dem dem ñi mënta dem seen xol ya dem ñi nga xamante ni yàlla baax na leen ñu boole ñaar yépp def ko ñu gis ni aw yiw dong nag moo ci nekk ak tiyooba ak cofeel gi nga xamante ni jullit ñi amee nañ ko ci yenant ak waa këram imaamu jaafaru sadiq alayhi salaatu wassalaam benn bis toog na ak taaliba ya mu jékki-jékki saag daal ni leen ndaka ngeen di defak ak bis ba gaa yi ni ko imaam bis ba mu leen xanaa bis bu mu juba bisu njàqare ba nga xamante ni kenn ku si nekk di nga yaakaar ku jàpp si sa loxo ba génn la si njàqare ba daan yéen taaliba yi إذا كان يوم القيامة نادى مناد ëllëg yowmal qiyaam danees na jekk-jekk ba yàgg rek dégg benn wootekat nee na wootekat ba mu ngay woote naan ay na zuwaaru Xuseyn ibn Ali ana ñi nga xamante ni ñoom ñoo daan ziyaare ji ki nga xamante ni moom moo di Xuseyn ibn Ali nga xamante ni ñoom dagg bee di dem di fekk ji imaamul Xuseyn ca Karbala ana ñi nga xamante ni ñoom ñoo daan takk seen dàll ya bu mu dëgër bi fi seenee dox dem fekk ji imaamul Xuseen ca Karbala wante ana ñi nga xamante ni tamit amuñu woon mat googu noonu mais daan nañ toog ci seen kër ya di ibbi téere ya di ziare al imaam Xuseen yi ànd ak bëgg ko ak yàlla tax la ngay def nee na bu waxee loolu rek moom yuuxukat ba dangay gis ni ci noonu rek fa yaqumu anqun min annaas nee na nga jekk-jekk gis benn mbooloo moo xamante nii ñu nga génne ca bërëb ba mbooloo moomu day takku na genn takku goo xamante nii kenn mënu leen a compter kenn xamul lim ba ñaata la ci ay millions kudul dul borom bi subhanahu wa taala nee bu ñu génnee ñëpp gis leen ñu amee ay siyama amee ay mandarga yoo xamante ni ku leen gis dee xam ni ñii ñoom ñoo nekkaloon waa kër yonent bi ci àdduna nee na fa yaqulu lahum mu wax leen ni leen ma aradtum bi ziarati qabril Husayn yéen jamono bi ngeen di jug di dem di ziara ji imaamul Husayn lan ngeen ci namoon lan moo nekkoon seen hadaf lan moo nekkoon li nga xamante ni moo leen taxoon a jug da ngeen a demoon pour Hussein wala da ngeen demoon pour ziar wala da demoon pour xumbaay ba wala da ngeen demoon pour rek ci turu dem naa Karbala nee na fa yaquluun gaa yaa ngay tontu ñu naan rab yaa rabbi ay yow suñu boroom kon mu mel ni foofa noona gaaya yàlla subhanahu wa taala lañ doon waxal ne lan ñu ngay tontu ne ataynaahu xubban li rasulillahi sallallahu alayhi wa ali ñu ni yow suñu boroom ñu deey bi ñuy dikke imaamul Xuseyn di fa dem di ko ziyaara ji dañu ko defoon rek ngir sopp yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax lam ñu waxoon Xuseyn min nii wa ana min Xuseyn Xuseyn dafa bokk ci man jóge ci man man tamit ma bokk ci moom jóge ci moom ñu xam ni kon lu waay defal Xuseyn yenent bi nga ko defal loolu moo taxoon ñu dem di ziyaara ne la yemuñu sa ñu nu ko wax xubban li aliyin wa fatima dañ ko defoon ngir papaam bi nga xamante ni moo taxawal lislaam wante dañ ko defoon ngir yaayam bi nga xamante ni ci sa deret la jóge maanaam mi ngi woon ci deret yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkoon léppam wante wa rahmatan lahu ak yërëm ko mimmartakaba minhu ci li nga xamante ni daloon na ko ca bis bu metti ba ñeewantal ko encore loolu moo ñu yëkkati woon nga dagg suñu lépp ñii di dox ñii di naaw ñii di war ñii di jóge fu ne façon xeet bu ne tamit ñëw ci boobu noonu nee na fa yuqaalu lahum ñu ngi leen di wax ni leen hada muhammadun wa aliyun wa fatimatu walxasan walxusayn falxaqu bihim nee na ñu génne ñi nga xam ne ñoom mooy asxaabul mooy juróom nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ca mbalaan ma yàlla wàcce ñoom ay ayat al alquraniya ba waxoon innama yuridu llahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira nee na ëllëg juróom ñooñu la ñuy génne seen karam ya leer nañ nee na ñu daal leen di teg ci pénc mi ñëpp di leen gis ñu daal leen di wax ni leen kon bokk yéen ñi nga xamante ni yéen a daan ziyaara ji imaamul Hussein te yàlla rek taxoon dem leen ngeen gis juróom ñooñu di asxaabul kisa ngeen bokk ci seen mbooloo ma fa antum maahum fi darajatihim du ngeen sa yem sax pour dem gis leen rek wante ñoom day fu ñu dugg di ngeen fa dugg fu ñu toog dingeen ngeen fa toog luñ wax lu ne di ngeen ko dégg ñu defaral leen seen tànt ya seen xayma ya ñu ci seenee toog a imma di leen waxtaanal di bëggal seen xol ngir naqar bi nga xamante ni amoon nañ ko fii àdduna asxaabul kisaa di leen ko weccee ak mbëgte ak kontante nee na mu leen di wax naan alxaqu bi liwaai rasulillahi fa yantaliquuna ila liwaai rasulillah imam saadiq nee na ñu ngi leen di wax ni leen dem leen ngeen bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo féete ak drapeau yenant ñee na yi dem àgg fa yakunuuna fi zillihi wal liwaau fi yad ali nee na ñoom ëllëg ñu bokk ci ker yonent bi wante bu boobaa dinañ gis drapeau ba yonent bi jox ko Seydina Aliyin ginnaaw ba mu jëndoo bàkku ba ñëpp xam ni kii mooy yonent mu daal di jël drapeau ba jox ko deuxième ki nga xamante ni moom mooy taxaw ëllëg dóor pas di Ali ibn Abi Talib ñoom ñëpp topp nee na noonu lañ koy jàppee di dem xatta yadxuluuna aljannata jamian ba ñoom ñépp ñu rotandoo dugg biir àjjana te duggub àjjana ak asxaabul kisa alquran moom moo ko nettali jàngal ñu ko ci suratul insaan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa xariran muttakiina fiha ala al araiki lu toll ay fukki ayat ya borom bi wa taala dëgg si wax ba kashfani wax leen ni leen ñoom asxaabul kisa ëllëg ñoom ñooy njëkk dugg àjjana parce que tabaxal naa leen seen àjjana teew na kon mu mel ni ñoom seen àjjana kenn si kisaa tegu ko kon képp koo xamante ni ëllëg daje nga ñoom ba bokk ci seen ker googa buñ duggee àjjana yow di nga fa dugg nee na fa yakunuuna amaama liwa gaañe nekk ci kanamu drapeau ba nee na ali jiitu yor drapeau ba asxaabul kisa topp si soldaar yi topp si nee na côté boo xool nag ay nitam rek ngay gis amaamal liwaa ay nitam ngay gis yaminuhu ay nitam ngay gis yasaaruhu ay nitam ngay gis nitam ngay ñoom ñëpp ñu àndandoo wii ji ki nga xamante ni moo di yonente sallallahu alayhi wa alihi wante ñoom ñëpp tamit ñu àndandoo fis seene dugg àjjana ndax coono bi nga xamante ni la nañ ko waa kër yeneen fii si àdduna yooyu yëpp nekk ay ngëneel yoo xamante ni imaamu Jaafaru Saadim wax na leen ko nee na ba ñu paree rek soldaar yi commencé ñoom tamit bënn seen bëddee di jooy kenn ku si nekk am raax ba pour dem ziyaara ji imaamul Hussein ña demoon bëggoon a dolli demul woon bëggoon a dem ña nga xamante ni mosu woon ñu def seen bopp yi pour ziyaara imaamul Hussein booba leen def seen bopp yi pour dem ziyaara ji ko ngir mën a am gëneel yooyu nga xamante ni imaamu Jaafaru Saadiq tuddoon na ko mu mel ni kon ziar imaamul Xuseeni nekkul hasard boo xamante ni bëggub dem rek moo tax ñu di ko def mais ngëneel ya fa nekk euh, yeneen bi jàngale ko imay jàngale ko ba ñu àgg si ñun loolu moo tax nit ñi di am raax ba pour di dem ziar ji imaamul Xuseeni alayhi salaatu wassalaam bu ko defee loolu tuuti la woon ci ay audio ñun wàcce woon pour defoon ko ziyaaratul arbaïn bii nga xamante ni tey heure bu jotee rek nga xam ni am na lu xewete ci diine l'islam mais am na lu yàlla joxe ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu